boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir mën a am mbooleem vidéo fi bàyyikoo waaw kon ñu ànd teewlu rek kàddu nga xam ne ni dina jóge ci Serigne Moustapha ci bisu bu tedd bi nga xam ne ni ci la ñuy ñaanal ak fàttaliku Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké bismillahi mina sheytaani rajim ñu sant yàlla julli ji sangat bi jaajëfal xaadimu rasul di fas yéene yëkkati kaddu kaddu cant nga xamante ne bii ci la ñu nekk muy fàttali ko suñu yaakaar ja suñu royukaay ba suñu kilifa ga Cheikh Mouhamadou Lamine bu ko ñaanalit yàlla yàlla yokk ay leeram yokk ay xéewalam fee mu nekk dëkkale ko ak maamam ak waajuram wa moom nag dañuy xaw a mal ci wax ci moom waaye moom moo wax boppam ndax jëfam ak pas-pasam ak taalibeem ak bëggam sëriñ Tuuba ak Seex Mamadu kon su ko dee wooteel bis Sénégal gépp ñëw di ko sargal si day day day day gën a dal suñu xel ci moom ci ne ñun ñoo ci des waaye moom wàcc na kon ñu yalwaan suñu bokki taalibe yëpp fu fi ab murit nekk rek mu teewlu ñaanalal ñu sunu yaakaar jooju Cheikh Mamadou Lamine ay lixlaas tëye ko salaatu ala nabi lu mu man ndax kat ñaan moom ñëpp yite woon nañ ko rawatina ku nekk yomal xiyaam ndax Seydina Muhammad sa nga bind fi foo ko tudd ñaanal ko Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul foo ko tudd ñaanal ko Cheikh Mamadou Fadel foo ko tudd ñaanal ko kon nag mu ngi diis bokki taalibe yëpp ñaanal ko yàlla yàlla yokk martabaam fee mu nekk taxawul ko gannaawam euh, liñ ci jote gis nag mooy aw sas ci noonu ndax ki nga xamante ne bi moom moo fi bàyyi ko ñu nekkal ko fi am nañ lu bare bare bare lu ne ci suñu kanam la loo xam ne suñu suñu warteef lay war a doon kon nag ñu ngi ñaan yàlla mooy ñu kattan ak ak dal ba bañ man koo àggaleel ak liggéeyam waaw sëñ Bara nekkoon Murid Sadex mboolem jikko yu rafet yi ñuy tàmmu ci ab jullit mu amoon ci moom tey nag ñu koy fàttaliku tey bu ñu bëggoon benn yóbbal rek ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku moo xam ñu ne ci réew mi wala bitim réew ban jikko wala ban yóbbal nga leen di jox ñu roye ko ci jëmm ju tedd ji nuy màggal tey. loolu dafa yomb wax ndax sanga binde fi Seydina Muhammad yàlla bi mu koy tagg taggu ko ci famille taggu ko ci man-man taggu ko ci am-am taggu ko ci doole ci jikko la ko tagg muy royteef Cheikh Mamadou Lamine nag ci jikko yooyu la am. ndax da daa jégale da daawul tooñ da daa dimbale it gëmoon nag Cheikh Mamadou Fadal ba ki nga xam ne moo fi nekkalu Serigne Fallou doon ab benn bis ca Gabon mu génne xaalis di wane ne ku bëgg ku xam ku gën a bëgg Serigne Fallou ma jox la sama xaalis bi ñi di wooy ba ku ne ñu tudd ko mu delloowaat xaalis ba ci poos ba ne leen leen ko denc naa sama xaalis alaaji baara li xam moo ki gën a bëgg sëñ Fallou ci senegal ak ci àdduna te boobu moo nekkal sëñ Tuubaa moom moo nekkal sëñ Fallou kon foofu mënees na fee def seede beneen bi ci desit jaamu yàlla moom da ko daa def bu baax di ko digle te daf daa wax naan amit taalibe amuk taalibe ko gën am kilifa it doon doon kilifa it am kilifaa ko gën Makka moo ëpp lu ci dem ci ñi mu bokkal sant wi ñu nekk jumaay Tuubaa ji moo ëpp lu mu ci julli juma ci sant wi ñu bokk loolu firnde ne kon moom lislaam ñor na ko yittee ma te pas-pas la ñuy bokk Sëriñ Tuubaa mooy jaamu yàlla kon kennal sa borom dafa yonent bi muy sa référence ndax koo mën a doon kat sa bàyyi gënul nohin su bàyyi gënul nooyin ndax nooyin ci cinq premiers yi la ko yàlla boole ci moomin kay teewul doom jaa nga sawara kon doomi diw rakkal la fexe bay diw mooy mooy wax ji kon yàlla nañu yàlla defal ak dëgg ak ak topp xam naa sëñ bi waxtu wi xat na waaye bu waxee waxee Alaaji Baara itam euh, xel yëpp day dem ci jumaa ji xel yëpp dem ci Touba ak réalisation yu am solo yi ci dem waaye xel yëpp itam dem ci fonk gi mu fonkoon taalibe yi kon bés ni ko tey bu ñu koy fàttaliku itam xel yëpp dina dem ci loolu. waaw loolu moo fi indi nit ñi man andiwu ma fi nit ñi Cheikh Amadou daf daa wax mboolem li ngeen fi gis rek taalibe yee cee boole daal di fii ab daje ne kat sama doomi baay yi seqal waa kër Sëriñ Tuubaa woowuma leen ngirub añ wala woowuma leen ngirub dama leen a ngir xamal leen na leen ñi ko moomoon dem nañu ñun ñi ko bokk noo fi des danañuy waxtaan kooku loolu moom joxe woon na bindoon na jox fab dëkk bi séddale ko ñin ñi moom te amu ci amu ci wàll ñu junniy pàkk ñu juróomi téeméeri pàkk ba dëkk bi nat mu nattaat defaat noonu kon moom xamoon na ne adduna fii lay mujj ndax fii la dëkkoon la fii lañ ko denc rek waaye ana fi jëf ana fi jëf ndax ñëw kese ak dee ñëw ba dee rek taxut kenn yàlla indi kenn àdduna dañoo bëgg boo fi ñëwee nga jëf fi loo xam ne lii boo fi jógee ñu xam ne lii kat yaa ko fi defoon tamit doon lu baax kon yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ngi sant nag daara ji muy Hizbut Tarqiyyah ndax kat sëñ rekk rek ko leen am Hizbut Tarqiyyah sëñ bi rek ko am moom keneen amu ko nit ko am xam-xam am métier doonu su gor doonu jullit jàng mbindam càmmooñ ba géeju ca wëlbati ko man li ngeen man nooye li ngeen nooye Sëñ Tuubaa rek fa am amut feneen waaw ñu ngi leen di ñaanal ak yàgg ci barke Sëriñ Tuubaa di ñaanal suñu xarit ba suñu wëlëre wa taalib Sëñ sëñ Aatu Jaañ yàlla yokk ay xéewalam fa mu nekk wonale ko sëriñam ba Sëriñ Tuubaa kii nga xam ne moom lañ jox daara ji te sëñ Saaliw sëñ euh, Muntaxa wax ne bu ma xoolee euh, yuusu damay gis aatu bu ma gisee xoolee aatu damay gis yuusu kon benn lañu moom yàlla na ko yàlla téeñalal ba li aatu manoon mu man lu ko raw ndax sëñ Tuubaa tànki kanam la am amul tànki gannaaw waaw ak mboolem ñi nekk ci daara ji xam ne daal man ci seen daara ji laa bokk ndax pas-pas la te sëñ Tuubaa pas-pas koy doon sëñ Tuubaa bu fekkonte ne pas-pas du ko doon kon ku sant Mbàkke rek bokk ci waaye boo santee Mbàkke te te jébul woo doon taalibe bokk sëñ Tuubaa dara bi ngay bokk sëñ Tuubaa nag mooy ak jub di jaamu yàlla dafa wax ne ku ci nekk rek la nga baax rek laa bokk ak yow waaw asalaamaaleykum boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo